waaw ñu ngi ci ndoxu zam-zam bi macha allah vraiment di wax naan képp ku fi mës a mën a ñëw ah, ndoxu zam-zam moo nekk nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ndox mi moo gën ndox ci kaw suuf allahu akbar ndox bi gën a neex ci kaw suuf bi gën ci kaw suuf mooy ndoxu zam-zam day faj allahu akbar day faj feebar boo am nanga ko naan borom bi subhaanahu wa taala dina ci def li nga xam moom mooy barke allahu akbar ndox maa ngi nii ñu bari ñu bari ñu bari wallahi ñoo ko seede ay feebar yoo xamante ni demoon nañ ba désespéré waaye naan zam-zam ànd ak yéene ñaan borom santaala nangul leen mu ne kon képp ku fi mën a ñëw na ñëw macha ñaan borom santaala wakkiirlu ci yàlla ñaan borom santaala yàlla nangul ko ñaan yàlla na yàlla sàmm julli ñi fi ñu mënta nekk bismillah